léegi nak li nga xamante mom lañu bëgg mooy ñu libéraliser ko suukar si mëna ñëw concurrence mëna am nit ñi mëna am qualité bu baax ndax nit ñi duñu gis qualité bu baax di jël qualité bu bon. mais li ko bëgg non seulement yor monopole bi fi mais ba pare li di importation suukar si mom mu di assurer mais mom moy kan. au détriment de nos commerçants lolu ça ne se passera pas li muy def nak di organiser ay mobilisation ça et là di jëm a mettre la pression ci état bi lolu du jàll. te lépp li nga xamante ne moom lañ ci war a def dinañ ko def ànd ko ak commerçant yi xeexandoo ko ba pare préparer benn pétition Mimran moomu réew mi mun nañu ko bàyyi fii ci wàllu suukar si muy def lu ko neex.